yene ko yene ñu ko sax ndax ci dëkk bi lañ dëkk hmm. kon li dañ koy rafetlu di la ñaanal it lu fu mu joge yalla na ci yalla suñu borom def baye ay li fa def barke lool sax rek sante ba ah fay jaam rek fay imam gu imam gu lañ koy doye li nga wax rek non lay doxal waaw ndax ko mo ma gën xam l'islam lu bëgg lu santane santaane hmm. wax expliqué rek waaw doxale ko non waaw imam ñun de dañu amone yene hmm. ci koor gi indi woon ndimbal mm-hmm. ñu ngi doge nag ba Dakar mm-hmm. euh, ñu ngi visé woon nag euh, presque def nañ dakaar euh, envoyé nañ tamit Casamance ak Fatick ak fii li tax ma boole Malicounda nag xëy na dafa am Malicounda li ma ji te mm-hmm. am dafa am lu ma fi gis tamit parce que xëy na yàgguñu fi yàgg nañ yàgguñu fi parce que xëy na ñaari at rek la am ba ma duggee Malicounda ak léegi mais comme lii nii dañ ko defoon pour dimbali ñi nga xamante ne seen loxo jotul seen gannaaw te depuis ba ma fii ñëw ba tey maa ngi gis ne xëy na maa am na daal ay kër yoo xam ne dugg naa fa te gis naa am na ñu ko yellool fii moo taxoon ma ne Malicounda moom na mun munti def ba bu dee ab tuut la sax dinaa ko ci coppati daal di ko fi indi fii partagé ko ak ñoom looloo waraloon lii lii nag bëriwut daanaka sax paap rek laa ko waxoon waxuma ko kenn parce que comme niñ ko waxee rek nit suy def day def ci sutura day def tamit parce que xëy na soo demee di wane wu ngistal mën na cee dugg wala seytaane rax ci bu ko defee sa jëf daal di seey moo taxoon ma wax ko paap rek ma ne ko danga may recensel vingt famille yoo xamante ne xam nga ne seen loxo jotul seen ginnaaw neem lii bëriwut waaye mën na xëy na gunge nit benn fan wala ñaari fan ci koor gi sentu ñu nag ndimbal euh, fay suñu borom rek lañ ci sentu mm-hmm. yan ko yàlla may ak ñi nga xamante ne moom ci gunne gunge parce que xaalis bi jógewul si man kese dama cee participer sama morom participer ci ma boole lépp jënd ba mu baax dafa ci ay mbuus indi suma sañu nak nag ko ci guddi parce que xëy na kër yi ngay dugg di ko yóbbu sax nit ñi di gis àndul ak sutura mais comme ñun dëkkuñu fi te ñoo war a dem léegi moo tax ñu ñëpp def ko ci heure bi moo tax ñu teel a ñëw dina mbuus boo ci gis am na xëy na ceeb la am 5 kilo ceeb euh, dëwlin euh, sucre beurre chocolat ak tandarma moom mo nek ci mbuus yi léegi nag ma ñëwee ma wax ko sama ñi nga xamantene ne fi ñëwee ba tey ñooy liggéey moo tax ma woo leen ma leen man de li la bëgg def jappalé leen ma ngeen recenser ma parce que daaxum xaw ma fi maliku nda xawma ñu fi dëkk léegi nak ci la mané recenser na 20 ma indi 20 mbuus léegi nag ak seen euh, accompagnement so lañu accompagner rek dañ leen yob yóbbu ku nek benn mbuus yaakaar na recenser nga nga ma ba xam ma fi ñu da yobu tay wa waaw léegi bi ma wax ko ko nag mu ne ma lii moom mënuñu ko yobu tank que waxuñu imam mu ñëw bu ko defee imam mën ko teewe waaw looloo xam naa looloo waral mu dem woo la ñëw ñu ngi rafetlu bu baax déplacement bi ñun sax ñoo waroon a ñëw. waaw ci biir ci biir loolu sax ñoo waroon a ñëw waaw comme man ñi ma jëloon xam nga moom ma gën a xam ñu ko yellool ak ñu ko yellool waaw waaw waaw taxaw ma ñëw parce que gis nga ku gërëmul nit rek doo gërëm suñu borom mhm. ndax dama dem fay mii yàlla rek a tax ma yow bu ñu xamantee gaa yàggul lool mais mel na ku ñu xamante ay at ndax daf ñoo ñeme mhm. day yendu fii ñu jële suñuy añ dugg suñu biir motax lepp lu mu am yalla nako yalla matul suñu yene suñu digënté ak nina ndax li ni naa ko si ay ministre jaar nañ fi ay député jaar nañ fi waaye li nga def ni mosuñu ko def yëkëti ndimbal indi ko si dëkk bi mu ne ah, ma ko am na ñu fi jaar bo xam doon ay mais mosuñu ko def kon li boko defé dañu nan fa ko jël yalla na fay li dess yalla na barkeel amin ya rabbi ndax yalla suñu borom jëf ju baax rek lay fay amin ndax mënoon nga lu délé Dakar ba fi kër fa ne. sant yalla bi nga xamantene doon nañu ay jullit ba pare ñu yëg ak njullite gi ñu doon ba pare yëg ne ñun bokkuñu niveau de vie am na ñoo xamante ne xëy na ñun euh, benn classe fu muy dund beneen bi mu ngi dund ci niveau bi gën a suufe ñu yëg ne nag dimbalante war naa am ci diggante bi parce que mënoon nañu am xaalis ba pare mais seytaane not ñu ñuy gis suñu bopp gis ne dañoo war a nekk ci conformé dootuñu du ñu yëg ñeneen mais bi ñu yàlla dimbalee ba won ñu loolu kon yàlla am na lim namm ci ñu parce que lii yiw la boo xamante ne yéen ñee ñu yéen a ko andil ñu war ko partager ak yéen moo tax bu may wax damay naan ñun parce que lii ku ci participer pour ku ne ku mu ci mën a doon ku rek ci jëf jéeg wax yi lépp sa ngi ci biir yëpp lépp yaa ngi ci biir parce que innamal amalu bi niyaat wa innama li kulli imrin ma kenn ku nekk sa yéene yàlla yéene lay fay te niyatul mu'min ablag min amalihi yéeney jullit moo gën a jotal ak jëfam léegi kii yéene def lu baax nag ak ki ko ci gunge ñoom ñëpp ñoo bokk fay lii nag yàlla ngeen di liggéeyal parce que in tuxridullaha xardan xasana yudaatikum bu ngeen lebalee yàlla yàlla ku ko lebal guddi ku ko lebal ker mu fay la guddi te rawatina nag ngeen def ko ci moment bi gën a gënal yàlla muy bëccëgu weeru koor

loolu moom bu leen yeboo ngeen ngeen ngeen am sentiment boobu andi ngoon ko fi ñu ko soxla ci ñi ko soxla ci moom bu ñu ko soxla yàlla na yàlla fay leen nag yàlla mi amee yàlla na yàlla fay leen eh, yàlla bu leen seytaane woon seen jëf nag seytaane yàlla na bu leen woon seen jëf parce que nit ki dina yéene jëf lu baax di yéene jëf lu baax di dem ba nekk ca jëf ja seytaane traversé rek mu gis boppam mu jàpp ne ab ngëneel moo tax mu dafa gën ki muy defal moo tax mu di ko def loolu bu ci dugee rek seytaane am na ci wàll yàlla nag seytaane yàlla lafal leen loolu ba loolu bu mu traversé seen bopp bu mu traversé seen xel bu mu traversé seen jëf yàlla na lépp lu ngeen def ki lu baax rek ngeen fàtte ko parce que loolu rek mooy sens jullit lépp loo def ci lu baax nga fàtte ko loo def ci lu ñaaw nag. fexeel ba di ko fàttaliku nga teg di ko teg sa kanam ne jàppal ne yàlla bu mu àttee ci lii mën na maa lakk parce que jullit bay dund ci manzila tey ni manzilatul xaw fu ak raja yaakaar yàlla jamono ju nekk rek yaakaar yéen ma dem jamono ju nekk tamit ngay yaakaar ne def nga bàkkaar boo xamante ne yàlla bu ci àttee mën na laa lakk parce que loolu mooy sens jullit mooy tax yow nga ngay fuglu sa digganteeg sa borom jëf ji ngay jëf nga di ci contrôler sa bopp parce que moo taxoon Omar ibn Khattab naan xaasibu anfusakum qabla an tuxaasabu na ngeen évaluer seen bopp balaa ñu leen di évaluer kon boo yendoo di jëf ba ngoon jot ba nga tëdd ci sa lal nga gënaayoo sa loxo kenn fekkeetu wala kenn ku fekke calculer fi ma jaar yëpp ciy jëf lan moo ci baax boo xëyee nga amélioré lu ci bon boo xëyee nga not sa bakkan pour bañatee aw ci lu mel noonu lii nag wax dëgg yàlla euh, comme li ma waxoon sànq rek ñëw na ci heure am yal na yàlla fay leen yàlla na yàlla fay leen yàlla mi tax ngeen di def yàlla na yàlla nangu seen koor nangu suñu koor nangu seen jëf nangu suñu jëf yàlla barkeel leen fa mu jóge yàlla na barke wàcc fa fa mu jëm tamit yàlla na doon ak njot boo xamante ne boromam day mën a joxe heure bi déwén fa mu jëm yàlla na borom mën a joxe heure bi déwén parce que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam noonu la ko doon ñaane allahumma atil munfiqa xalafan wa atil sika talafan yàlla na yàlla eh, remplacer ke joxe ab koom bu bari ka joxe yàlla na yàlla barkeel la mu joxe fa mu jóge yàlla la ko yàlla barkeel fa mu jëm tamit yàlla na fa fekk barke yàlla daal eh, yàlla na yàlla gis jëf yi kontaan nañ wax dëgg yàlla ala kulli xaalin sant nañ yàlla sant nañ leen wax dëgg yàlla ala kulli xaalin eh, lii mooy ak njullite parce que yàlla mu ne innamal mu'minuuna li moo tax sa mbokk nga sentir ne mu ngi ci jafé jafé wala nga imaginer mu ngi ci jafé jafé rek nga dimbale ko te yalla tax. kon lool la won bobu la. Ah, imam kontaan nañ dal dafa yalla kontaan nañ trop kontaan nañ trop li mom xamone na ni mom imam du ci mucc ndax lii moom xaw ci dara <laughs> li waaw xaw ma ci dara ndeysaan loo xamul nag da ngay ne xaw ñu ngeen ko kon incha allah léegi yow ndey may woowal ñale ma ma